xam sa démb xam xam sa démb xam sa tey xam est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti, la maison de l'oralité et du patrimoine. Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Écoutez-moi vous faire voyager dans les grands faits de gloire, faire revivre la mémoire de ces enfants, filles et fils, dont l'image parlera pour tous les autres. Notre histoire est belle et mérite d'être connue. Je veux l'écoute des oreilles de votre cœur. Nous sommes l'histoire. Nous avons une histoire. Alors connaissons notre histoire. xam sa démb sa tey connaître son histoire, connaître son présent. La grandeur d'un peuple est dans la mémoire féconde de ses enfants, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. xam sa démb xam sa tey ñu war a tey li doxoon ci diggante Sénégal ak Gambie ginnaaw mbokkoo gu yàgg gi nga xam ne yàllaa ko sos ginnaaw dëkk bi nga xam ne yàllaa ko def ginnaaw nekk gi ñu nekkee benn di wenn askan wu aw dig xaajale xam si dem xam sa tey di waxtaane lu fi masoon a am te jaaroon fi muy bi senegal ak gàmbi àndee doon menn réew ñu tuddee woon ko confédération sénégambienne Sénégal ak Gambie nag ñépp xam nañ ne suuf sa tàllalu la te dara dogu ko fu ko ndox dogee it ndox ma xàjjalewu leen waaye xam nañ ne fi nu jaar bi fi tubaab bi ñëwee toog ci dëndub Afrique bokkut ñaari réew yi toog nañu ay at yu bari di xool rek nan lañ mën a delluwaatee nekk menn réew ndax loola mooy li nit ñi bëgg bu ngeen fàttali ko Sénégal mi ngi jotaat boppam 1960 am indépendance am ci jamono jooja Gambie moomagul boppam jotaatagul boppam ndax booba anglais nga fa te anglais yi ka fa toogoon jiite ko moom dafa amoon dayo premier ministre waaye 1961 rek ca la ñaari réew yi Sénégal ak Gambie teg kuréel goo xam ne day lëkkale ay ministres yu jógee Sénégal ak yu Gambie war nag waxtaanee ñuy def ngir ñaari réew yi gën a jege ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci octobre atum 1962 ñaari njiitu réew yi ne kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu adduna bépp di l'ONU nanu waxtaan ba gindi leen ci yan jafe-jafe koom ak alal la réew yooyu war a a jànkonteel xam sa démb xam sa tey 1965 Gambie daal di moomaat boppam bi ñu waxtaanee nag diggante Sénégal ak Gambie ñu daal di am juboo ci kaaraange ci avril 1967 ñaari réew yi daal di daje ci dëkk bee di nga xam ne mooy peeyu Gambie xaati moo fa ne danañ ànd ci xool lépp luñ mën a ànd def ko ñu ànd def ko ca weeru soin ñu ñëw dakaar daal di fii signé ne ci lu jëm ci xibaar ak napp ak mbay ak njàngale ak mboor danan fexe ba lépp ak mbatit ñu lëkkaloo ca Gàmbi nag 1970 la doon réew mu moom boppam ginnaaw bi réew mi àndee ne ñoom danoo bëgg a tàqalikoo ak anglais bi fa njëkk a nekk premier ministre Daouda a Diawara moo jiite woon nag parti bi ñu tuddee woon PPP di People's Progressive Party mu nekk président nag réew ma 1975 capital ba ñu tuddee woon Batroust ñu daal di koy ngéntewaat tuddee ko Banjul di ko fàttali ko tur wu njëkk wa doon Banjuloo at ca topp nag nguuru Daouda Diawara am jafe-jafe bu métti bu ñu fàttali ko fanweeri fanu juillet 1981 président Diawara demoon Grande-Bretagne ci réewum anglais mu am coup d'état bu ko dab ci gannaawam te ka ko yëkkati woon du ko koy Samba Sagna du woon nag opposant bu yàgg boo xam ne ca élection yi amoon 1977 2017 nga xam ne dafa àndoon ak partem bii di National Congress Party dañ ko caa dóoroon waaye keroog l'armée Sénégal jóg ci loolu ñu tuddee woon Fodé Kaba di opération bu mag fexe ba coup d'état ba yàqu jàmbaare daal di dugg biir Banjul ku koy Samba Sagna ak i nitam génn dem Daouda Kayró Diawara bi nga xam ne nag dafa toogoon Dakar ñu daal di koy delloo joxaat ko nguuram juróom-ñaari août ci 1981 loola nag moo juróom ci xelu ñëpp ni ñaari réew yi tàqale leen du yëfi nit ñu ànd doon menn réew loola rek moom mën a ne président Abdou Diouf mi fi newoon ak président Diawara nekkoon nanu fexe ba def réew mu ne am sa nguurug bopp waaye ñaari réew yi ànd nag doon benn gox loola ne kii di làkk anglais kii di làkk tubaab làkk jàmbur la sunu koom yi nga xam ne ci ñaari réew yi ñu ngi gëllu goosee du ko tere bu fekkente ne boole ñaari réew yu war a doon menn réew la te seen démb doon doon benn seen aada ak seen cosaan di benn seen mbatit ak seen mboor di benn suuf si di benn loola moo tax ba ñu waxtaanee république gu Gambie ak république gu Sénégal daal di ànd nag def benn kuréel muy confédération wu bi nga xam ne ña ngi ko taxawal ci ay kayit fukki fan ak juróom-ñaar ci décembre ci atum 1981 ci Dakar waaye nag moom bañ koy bind ñaari réew yi ànd nañ ne li nga xam ne mooy dëgëral ànd bi mooy fexe ba l'armée bi doon benn saytu kaaraange gi doon benn ngir kenn dootu leen xajale kenn dootu leen song te benn suuf la ñaari réew yi moom nañ seen bopp ñu ne ànd ci fexe ba ñaari koomi réew yi ak seen alal seen dërëm seen xaalis doon benn ñu ne fexe ba lëkkale gis-gis yi nga xam ne mooy lëkkale ñaari réew yi ak bitim réew ñu ne dañuy fexe ba gis-gis yi doon benn jëfin yi doon benn ci lépp loo xam ne tëralin la mu jëm ci ay mbir mbiri téléphonique jokkoo ak yeneen pàcc yor réew yoo xam ne ñaari réew yi mën nañ caa ànd ndax ñoo ca bokk ay bëgg-bëgg loolu nag ñu ne ngir mu ne dañuy samp ñetti kuréel benn bi mooy président bi jiite confédération bi ci topp koy ki koy wuutu muy vice président bi ñu ne bi ci topp mooy conseil des ministres bi beneen ba ca topp mooy assemblée bi nga xam ne mooy assemblée confédération ñaari assemblée nationale yi daal di kenn ku ne daje ci sam réew ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci décembre 1981 ngir waxtaanee kayit woowu Dakar nag opposition ak ñi yor nguur gi ñëpp a ànd jóg tàccu daal di cay ànd Gambie ak Sénégal doon benn confédération bi noonu la juddoo 1er février 1982 bis booba sax lañ ko jàppoon mooy am ñu def ko férié ci ñaari réew yi président Abdou Diouf nag daal di jiite confédération bi Daouda Diawara daal di nekk vice président bi ñu teg gouvernement boo xam ne gouvernement ba juróom-ñeenti ministre la juróomi Sénégal ñeenti Gambie Gambie nag yor assemblée nationale confédérale ba nga xam ne réew mu ne am nga fa ñeent fukki député waaye nag lëkkaloo bi ci koom ak xaalis moo indi jafe-jafe ba ndax ñaari réew yi daal bokkuñu ni ñuy waaxoo yenn ci kayit tànn ngir def ko yooye it ñu gis ci ay jafe-jafe ñaari réew yi daal xool ne bëgg nañoo ànd waaye jekko gu ñu ngir ànd ñu ajandi confédération bi fanweeri fani septembre 1989 waaye ba nu toogee rek ba 15 décembre 1989 ba ñu dajee dakaar ca la ñu tas confédération bi ndax nag bu ñu ko tasul mën naa jur ay te bañ a ànd jàmmoo moo ko gën Sénégal ak Gambie nag daal di bind këyit ne dañuy doon ñaari réew yu xaritoo abadan te diggante Gambie ak Sénégal seen lëkkaloo dootu dakk loolu ñoo ngi ko signé woon 25 mai 1991 la nga xam ne nag moom lañ ci jublu woon mooy fexe ba li lëkkale Sénégal ak Gambie doon loo xam ne abadan kenn dootu ko werante confédération ba nag donte ajandi nañ ko ànd bi moom dootu yàqu ñu ne nag ngir loola mën a am def at mu ñaari njiiti réew yi daje Dakar mbaa ñu daje Banjul nga xam ne dañuy teg kuréel goo xam ne ñaari réew yee koy séq di waxtaane li nga xam ne ñaari njiitu réew yi moom lañ bëgg ngir mu mën a am te ñu xool lépp loo xam ne Sénégal ak Gambie mas nañ ko signe digge ko ne dañ koy def ñu xool nuñ koy defee kon ñu mën a jàpp ne confédération sénégambienne maanaam doon na dekkalaat sénégal Sénégambie Sénégambie gi nga xam ne mooy cosaanu ñaari réew yi Sénégal bi gi nga xam ne bu tubaab bi waxtaaneewul woon Berlin lu muy séddoo Afrique ba jël anglais dugal ko ci diggante bi ngir xàjjale Afrique soow jant kon tey mën nañ ne Sénégal ak Gambie benn passeport lay doon benn carte d'identité kenn du fa dem ñu lay laaji këyit lii nag nettali la ngir ñu yor réew yi tey xam ne lii amoon na fi démb la indi woon lii nag mën naa indi leneen. mën naa indi lu ci gën ndax ku xam sa démb da nga xam sa tey mën a waajal sa ëllëg xam sa démb xam sa tey confédération sénégambienne Xam sa démb xam sa tey est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur et professeur Ibrahima Wane, direction artistique, présentation et réalisation docteur Massamba Gueye, assisté de Abou Soumaré, Régit Ousmane Faye de la Factory. Technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouye Fall Goethe Institut. Goethe